Cheikh Omar kilifa diine mooy kan alhamdulilah ñu ngi delluwaat di sant sunu borom di julli ci yonent bi euh, baat yi dafa jar a taxaw ci sharia baat baat boo jël dañ cee war a taxaw mhm. parce que léeg-léeg baat day rot ci alquran rot ci hadis mu am déggin boo xam ne moom la ko teg si jox société bi jox ko beneen déggin mhm. am baat yoo xam ne rotul sax ci texte yi mhm. mais nit ñi ñoo ko jox sensu baat bu rot ci texte yi ko aussi dañ koy xool balaa ma ñëw ci baatu kilifa googu ñuy wax dañuy jël baatu waliyu mhm. waliyu dafa am déggin bu ko diina jox mais nit ñi boo nee diw waliyu la mooy kuy naaw ci jaww ji kuy dox ci kaw ndox mi wala koo xam ne day dugg ci safara génn te du tàkk wala mooy koo xam ne bu guddee day fanaan ci kaw ñëwaat wala mooy koo xam ne xam na yow say mbir xam lu nekk sa kër wala mën na laa soppi golo wala booy wax ci moom lu bon fa nga nekk mi ngi lay dégg mën na laa alak mhm. est-ce que loolu mooy waliyu ci charia yàlla dafa xam ne ah, baatu waliyu ci ñaari aaya ci alquran mhm. dana in awliyauhu illa almuttaqun wali yàlla moo ñu ragal yàlla mu xaar ne ala inna awliya allahi la xawfun alayhim wala hum yaxzanuun wali yàlla yi amuñu lu ñu tiit amuñu lu ñu ragal amuñu tiit amuñu njàq mañ dañ koo laaj ñenn mu ne allisina amanu wa kaanu yattaquun moo ñam iman ngëm yàlla foi bu dëgër ba pare ragal yàlla foi bi permettre leen ngëm gi may leen ñu ragal yàlla mm-hmm. yàlla waxaat ni allahu waliyu lazina amanu yuxrijuhum min azulumat ila nuur walazina kafaru awliyaahum taagut yuxrijunahum min annuur ila azulumat mm-hmm. yàlla moom mi ngi féeteeg ànd ak ñi gëm yàlla da leen di génne ci lëndëm yóbbu leen ci laar ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla alladina kafaru awliyaahum taaxut ñoom ñi nga xam ne ñooy xërëm yi ñooy seeni i àndandoo ñooy ñoom lañu féeteel ñooy seen i partenaire mm-hmm. kon waliyu ci cosaan bi ci baatu arab ci làkk mi muy firi mooy ku ànd ak yàlla ku féeteeg yàlla mooy partenaire mm-hmm. mooy àndandoo mais tekkiwul kuy naa kuy nangam mm-hmm. léegi lan mooy signe gi lan moo koy maye mooy at taqwa imaan iman léegi nag taqwa imaan nii dañ cee dañ cee dañ cee dañ cee rawante mhm, dañoo rawante ëppalante ci ngëm yàlla ak ragal yàlla mhm. ku la gën a gëm gën laa ragal moo la gën a nekk waliyu mhm. ku la gën a féete suuf ci ngëm yàlla ak ragal ak wilaayam moo gën a nekk ci suuf ci gàttal léegi kon loolu mooy li am léegi li ñuy tuddee azaimu diini muy chef religieux man li ma gis ci sama wàllu gëstu mooy traduction la ci wàllu tubaab ci baat bi ci tubaab la jógee chef religieux waaw kilifa diine zaim diini. Hmm. mais ci charia texte li ci nekk. danaa hmm. ñëw ci baat bi sens bi ndax lu ñuy nangu la am déet. Hmm. Euh, texte li ci nekk mooy rasul yonant. su jàllee mooy aalim. al ulama yonant dana euh, ulama warasatul anbiya. borom xam-xam yi ñoo doon yonant yi borom xam-xam yi la jëfandikoo. kon ñi doon yonant yi ñan lañ al ulama la leen yonant bi tuddee al ulama warasatul anbiya. borom xam-xam yi ñoo doon yonant yi. yonant yi baatu borom xam la jëfandikoo. yàlla ne shahida allahu annahu la ilaha illa huwa mhm. yàlla si al imran yàlla seede na ne moom moo yàllay dëkk mhm. wala malaayika malaayika yi seede nañ loolu mhm. wa ulul ilmi bu amoon beneen baat bu gën a foor da koy indi moo indi wa ulul ilmi ak borom xam-xam yi ci wàllu diine boo soxlawee laaj mu ne fasalu ahla dikr laaj leen ñi xam in kuntum laa taalamuun su fekkee xamu leen ci yëkkati xam-xam mu ne qul hal yastawi alladina yaalamuun walladina laa yaalamuun est ce que dana tolloo ñi xam ak ñi xamul baatu xam lay jëfandikoo de parce que mën ngaa jiite te xamoo moo tax baatu xam lay jëfandikoo. Mhm. xam ilm lay indi moom lay tudd. Mhm. baatu xam-xam lay jëfandikoo. Mhm. léegi nag mu des li ñuy tuddee njiitu diine wala kilifa diine. bu fekkee ne liñ ci jublu mooy borom xam-xam su boobaa laa mushaahaat istilaah. su boobaa du yàq dara ci kàddu gi. su fekkee lañ jublu ci kilifa diine mooy borom xam-xam. charia nangu na loolu. yàlla wax na ci al Imran aya 59 60 yow lazina amanu atiu llaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum mm-hmm. yéen ñi gëm yàlla topp leen yàlla topp leen yonent bi bi muy waxee topp yàlla topp yonent bi alayhi salatu salaam mm-hmm. waxul wa atiu ulil amri minkum mm-hmm. parce que topp yàlla mutlaq la taatullahi mutlaqa taatu rasul mutlaqa moo tax mu ne atiu llah wa atiu rasul waaye taatu ulil amri muqayada la loolu Shawkaani mi ngi koy wax ci fathul qadir fatul qadir aljaamiu bayna fannay riwaaya wa diraaya tafsiram boobu bi muy firi aaya bi dane yàlla takraarul dafa takraar taa moom ak yonent parce mhm. bi mu ñëwee ulul amri dane wa daf ko at fa rek wa ulil amri minkum ak seeni seeni seeni seeni kilifa kilifa yooyu mu ne rama tafsir dëppoo nañ ci ne humul ulama mooy borom xam-xam yi diine yi ak njiitu aduna yi muy les gouvernants et les savants mhm. ñooñu ñooy ulul amr mhm. te loolu li gën a dëggal mooy yàlla wax ni fa ida jaahum amrun min al amni aw al xawfi azaau bih mhm. walaw radduuhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu allazina yastanbituunahu minhum fa loola fadlullahi aleykum wa rahmatuh la tabaatumu cheytaana illa qalila mhm. mu ne bu ab mbir moo xam daf leen a dikkal xaw leen a yóbbu seen fit xaw leen a tiital ñu gaaw génnee ko tasaaree ko tasaare ko suñ ko delloo woon ci yonente bi mi fi nekk mhm. wala ñu delloo ko ca ñi nga xam ne ñooy seen borom mbir ya seen kilifa ya ña xam ci ñoom dinañ mën a xam lañ lañ ca war a wax ba génnee ko wax ko mhm. la alimahu allazina yastambitunahu minhu mhm. gis nga foofu aussi i wane kon al al al al al ulul amr borom xam-xam yi lañ ci jublu mhm. ah dina dina tekki borom xam-xam dina tekki njiit yi aaya bi day dëgëral ne day dañ ciy jublu li nga xam ni mooy borom borom xam-xam yi kon gis nga kalimatu ilm la ñuy jël kon kilifa diine moom kilifa diine ci lislaam mooy koo xam ne dafa am xam-xam am xam di ko jox dinañ ci ñëw ci mu waasafaat yi mooy dafa am xam-xam ñu xamee ko xam-xam muy xam-xamu diine. Mhm. kilifa aada am na. ne mhm. kii ci wàllu aada ci famille bi wala ci xeet wi ci aada moo fi mag moo mokkal aada yi yi ñu war a def ak ci xeet googa moo ko mokkal. ba mhm. bu ñuy wax diine bu fekkee kilifa diine borom xam-xam lañ ci jublu la bas la mushahar fi silah bu fekkee nag dañ ciy jublu beneen maanaa boo xam ni benn waay bu fi toog la nekkal fi ab kuréel wala nekkal fi ab famille wala nekkal fi ab xeet l'islam xamul loolu. xamul loolu Quraysh amoon nañ waaye amoon nañ kilifa aada. waaye newutoon ku ñuy topp ci diine mhm. yeneen xeej yi noonu yeneen xeej yi noonu l'islam laata muy ñëw arab yi kenn ku nekk amoon nga zaim qabali mhm. lu ñu tuddee kilifa ci ci ci ci ci famille bi wala mhm. kilifa ci ci ci xeet wi wala ci askan wi koo xam ne problème bu am ci moom la ñuy dellu mu daal di koy régler wala mu woote wala mu wala nangam mu daal di am su xeex waree am ak nangam soo waree amak ak jafe yi am société bi ci moom lañ koy régler loolu amoon na fi laata lislaam di ñëw kon zaim yàgg na fi macha bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaam ala rasulillah wa ala alihi wa sahabati ajmain asalaamualeykum wa rahmatullah mbokk dégg diine mbokk ñu topp ci plateforme digitale yëpp ñu ngi leen nuyu ginnaaw bañ leen sante bu baax ci àndandoo rafet bi ngeen àndandoo dégg diine boobu ba léegi projet ñu fi yëkkati ñu àndandoo ko yàlla defal ñu ci tawfiq ñu ñëwaat tey ubbiwaat beneen projet muy projet studio comme ni ngeen ko gisee liggéey bi laaj na ko moo tax ñu bëgg ubbi studio boo xamante ni studio d'enregistrement lay doon ay phase la nag maanaam ay pàcc pàcc la pàcc bi ñu toll nag mooy phase un bi moom liñ ciy def mooy insonorisation décor plateau ak lumière insonorisation mooy fexe def ba def anam yoo xamante ne dafay tax studio bi maanaam son bi du am écho te biru du ki dugg ñaareel bi mooy décor plateau mooy ñu defar plateau boo xamante ne ci la émission yi di amee ñetteel bi mooy lumière studio phase bu njëkk bi nag ki ñu ko war a defaral bi mu defaree début bi mi ngi toll ci deux millions de mooy insonorisation bi lumière studio yi ak décor plateau bi ak écran bi kon mbokk yi képp ku ci bëgg a jàpp rek même numéro bi la ba léegi mooy 78 514 78 38 ñu leen di ñaan ñëpp ngeen jàpp ci participer ñu ñaan yàlla subhaanahu wa taala mi nga xam te ne moo ñu doon jàppale ci projet yëpp yàlla nañu jàppale waat ci suñu projet bi ba balaa yàgg ñu passé phase 1 bi ba dugg ci phase 2 bi jazaakumullahu xayran